asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa alxaq saabit ci suba ba léegi nag bëggoon nañoo raddu son yi naam sax yeex naa koo gis ndax yeex na maa seet dama di ñi ci wax ma door xam ne da ndekete dugal nañ ko fi waaye dañ ciy jéem a def benn raddu bu gaaw rek bu njëkk bi mu ne ñi nga xam ne dañuy fétal ci diine nee na fétal mooy loo xam def loo xam ne buñ la laajee dalil bi doo ko mën a indi loolu nag moom wax na dëgg fétal la waaye wane gi mu wane ne ñuy fetal am na fi moom loolu mu amul fii moom kuy fetal néew fi ndax kenn ku nekk la ngay def rek teg nga ko ci dalil yu leer kon point boobu moom mooy raddu bi ma njëkk a maa ngi déglu yi ci des ba xam gi ñuy wax ne nag dangaa wuuteeg mag ñi mën naa bàyyi xel ndax boo fekkee ay mag ñoo xam ne ëppoo nga fekk leen cim réew ne dañoo juum te la ñuy def ñu teg ko ci ay dalil yu leer kon ku wuuteeg ñoom lañ lay wax war naa mën a nekk dangaa wuuteeg man ñi ndax ña nga wutal dañ judd ay gone ta tey ay borom xam loolu rek ci jaaxal nit ñi mais nag tekkiwut na amuti dalil mu ne mag yi mag ña nga saxaaba yi ak taabiuuna yi ak atbaau taabiina yi nekk nañ fi ba jóge fi te mawlit amut ma ne ko waaw ndax loolu day tegtale ne mawlit daa baaxut bu fekkee da koy tegtale ñen ñoo ko wax ci borom xam yi borom xam benn benn yi ko wax itam ana ana ana seeni dalil ci loolu ñun liñ xam ci lislaam saxaaba yi doon ko doxe borom xam yi ñëw gi ginnaaw saxaaba yi du ko doxe du noonu de ñun liñ jàng ci ñoom mooy ak jaamu yàlla bu fekkee yonent bi jàngale na ko bu fi jógee itam donte saxaaba yi mësuñu koo defee ca kayfiya booba wala atbaaru taabiina wala taabiuna yi du tee ku ñëw seen ginnaaw mën nga koo def loolu mooy tax buñ gisee ibbaadu yi weeru koor fukki fan yu mujj yi ñuy delluwaat ca jàkka ja du ñu ne def nañ biddaa parce que la ñuy def kayfiye ba nga xam ne moom lañ koy defee moo wuute waaye yont bi moo ko tashriya na naa fi moom weeru koor moom yont bee ko tashriya waaye nag li yont bi def te kenn ci saxaaba yi itam mësu koo def mooy tànn fukki fan yu mujj ci weerukoor koor yoo xam ne boo jullee bam neexa la nga dagg deluat kër ga mba nga deluat fenen bu ci kanam ya nga wat loolu mom saxut ci sunna ne sahaba yi daan ñu ko def julli mbooloo bu fekke yonte bi itam soñe na fukki fan ne nañ ci yokku jaamu yalla itam mësu euh, ko def julli mbooloo waye mësu ko def tamit sahaaba itam ñu ko def julli mbooloo xeyna na ku nek man nga ko def sa kër même boo demoon ci hadith yi wax ne jité won na ci fukki fan yu mujju yoyu yenn ci fan yi fan yu tool yi lañ lay wax alwitru mais boole fukki fan yëpp jiite ko moom boole fukki fan yëpp jiite ko moom kenn du la ko wax waaye itam buñ la ko waxoon itam kenn du la wax ne julli nañ ba mu yàgg ñu dagg julli ga dellusiwaat te ñii nag li ñuy def moom mooy dañuy julli ba mu yàgg dagg ko bu ci kanamee ñu dellusiwaat loolu nag mësta sax ci doxinu yonent bi mu saxut tamit ci doxinu saxaaba yi waaye jagleel fukki fan yu mujj yooyu julli mbooloo boogi itam saxut ci doxinu saxaaba yi loolu itam mooy tax bu buñ gisee ibnu taymiya mu wër ne amoon na wér dugum daan jàng boo xam ne nee na ku ko jàng ñeen fukki yoon diggante fajar ak jullit suba sab xol du dee nga xam ne wutal na ko waxtu wutal ab lim du ñu wax ne def na biddaa parce que li mu def xëyxee bi moo wuute waaye wër di moom yonent bi moo ko digle lool itam mooy tax ibnu taymiya mi nga xam ne bu diggante fajar ba ni jant bi fenke ni ko albazar nettalee aboo xafs da ko daan wërd nga xam ne bu xëyee fajar jot ba ni jant bi jógee day wax day baa mu fatiha duñu wax ne def na biddaa ndax kayfi bi moo wuute waaye jàng fatiha moom ku ne xam na ne lu ñu digle la loolu itam mooy tax duaa u xatmil quraan gi nga xam ne ibnu baas indi na ko mbaa boog daganal na ko te mënu laa woon fu ko yonti mas a defee mbaa kenn ci saxaaba yi ci biirug julli mooy tax te bu wax ne biddaa la xaw a jafe ndax Euh, doa u xatmal quran mu mashruan ci biir julli kay xanaa lañ xamutoon ci jamonoy saxaaba yi ak jamonoy yonent bi euh, waxtu wi nga xam ne fi lañ koy faral di def tamit mu mel ni ñoom ñoo ko tànn ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw saxaaba yi ak ginnaaw yonent bi kon dafa am wuute ndax borom xam xam yi da cee am ñoo xam ne dañu ne jaamuk yàlla diis ko bis xam ne yaay da ngay tànn bis bi rek ni koy def waaye ñooñu ne seen wax jooju ñi gën a bari ci borom xam yi ànduñu ci boo demee ci al ixtifaal bu al imaamul yaafi'i nee na ñi gën a bari ci borom xam yi bidaatu al bidaatu al idaafiya nga xam ne xëy na bis nga tànn mbaa kayfiya mbaa yooyu nangu nañ ko kon ñi nga xam ne ñoo ko nanguwut ay benn benn lañ ci loolu daa mat a xam te ñooñu koy wax naa mëneesu ko dañoo wax leneen ku mel ni Ibnu Taymiya nettali naa la ay wérdam gi yim daa yim daan def Ibnul Qayyim gis nga ne wérdu googu da koo rafetlu ah, Ibnu Hajar al i des na ko nettali waaye moom itam ci ñi daganal gàmm la bokk. Abu Shama itam léeg yi indi ab texam te ci ñi daganal gàmm la bokk même Shaatibi mi nga xam ne léeg ñu toxal ay waxam Shaatibi daganal na ay mbir yoo xam ne ah, yu baree bari yoo xam ne amutoon jamonoy saxaaba yi. charte bi nangu na jaamu yàlla goo xam ne nit ki ci ay nelaw la ko gis mu amub lim ñu ne ko jàng ko ñeent fukki yoon ci biir nelaw yi mu di ko def moom daal na ko bañ a def rek loo xam ne day jàpp ne daa war bu bu loolu amut moom amu ci benn problème kon nga gis ne kon daanaka man damay fal bu yàgg sax man ne xilaaf la koo gis muy wax lu bokkut ak loolu itam moom ci moom dana daganal lu mel lu raw gàmmu saxaaba yi xamuñu woon gàmmu bokk na ci li nga xam ne sax fii ci nawar ndax yoonante bi daana woor ab juddoom bis bi mu juddoo ñu laaj ko mun ne zalika yawmun wulidtu ci laa judd kon judd baa tax muy defub jaamu yàlla bokk na ci illa yi ah, muy weddi li nga xam ne ahmad nee na gaa yi amuñ ci dalil ndax loolu moom ab dalil bu leer la bu dee usul yi laa ahmad nag foogu mën a jàng na usul ndax man li ma dégg ñu ne jàng na ko ci arab saudi mbirum xadis la yooyu te loolu taxuta mën a def ifta moo tax xam naa xëy na day wax ci lu mu xamul waaye usuli yoon yi moom dañ ci dégg leneen ndax dafa am manaat bi la ñuy xool du caa gën normalement woor rek les ko mane nga xam nga def defuk ngir sant moom daanaka yaakaar naa jullit ñëpp dëppoo nañ ci ne moom mashruu la ki nga rayum xar mbaa nga def ak jaamu yàlla goo xam ne sant yàlla nga ci jublu loolu ñëpp dëppoo nañ ci ñii gàmmu nag weesuwuñ sant yàlla ci xéewal gi nga xam ne mooy Muhammad moom lañ def am na itam cosaan ku ne amut cosaan déggoo diine euh, ibnu xajar al asqalaani tegtaloo na ci ñëw gi nga xam ne yonent bi ñëwoon na madina fekk yahud yi woor mu ne leen lu tax ngeen di woor ñu ne bis bi tey ci la yàlla labaloon firaaw na ci la musal musa yonent bi ne leen noo leen gën a yey musa Moussa mu woor ko ngir sant yàlla kon yonent bi jàngale ne jàngale ne ne defuk jaamu yàlla ngir sant yàlla ci xéewal gum la defal ci bis wala mbugal moom la fegal ci bis loola mashruu la ñu itam defuñu lut seet bis bi nga xam ne jàpp nañ ne Muhammad ci la judd ñuy sant yàlla rek ci boobu comme na nga xam ne noonu la Muhammad ak i gaayam doon sant yàlla ci muccug Muusa képp lañ def moo tax Ibnu Hajar al Asqalaani génne ci génne foofu cosaanul gàmm te moom nag mooy usul yi bi nga xam ne mooy muhaddis nga xam ne xam naa ne mën naa jàngal at ah, Ahmad Lo euh, li des ci ak dundam te lam xam du jeex ñu bare bëri ci borom xam yi ko daganal tam ab liste bu mat la bu mag la waaye ginnaaw radd bu daa gaaw naa ci taamu kooku rek ñoo xam ne ñi koy ñi ko daganal ñoo ëpp xam-xam fuuf ñi koy weddi te ñi ko daganal tamit ñoo gën a bëri ñi ko weddi ci borom xam yi te it ay dalil yu leer nañ ñi lañ ci teg la la la lañ indi waaye wax ne yëpp jaamu yàlla goo xam ne saxaaba yi da xëy na miinee su koon ci ñoom wóoree su koo mën a def loolu moom ak réer mënu ko féete kaw li am solo moom mooy ndax am na dalil wala amul dalil loolu la ñu war a wax waaye saxaaba yi def nañ ko defuñu ko moom loolu moom du aw lay moo tax boo demee ci ibnu xasm ci almuhalla doon na ñuy wax lu mel noonu ndax gàmm moom ay dalil la yor loo ciy def lu ne rek lu mën a doon lu def ci gàmm boo laajee Moustapha Sylla mu ne la dalil baa ngi ni kon tànn bis lañ def te tànn bis nag ne maanaam nit ki mënut a jékki-jékki tànn bis boo muy sant yàlla ñi ñii gàmm weesuwuñ loolu weesuwuñ lut ne dañuy Euh, màggal juddu bi yonent bi ci bis bi mu judd nga xam dañoo ci gàttalal alxulaasa mooy dañoo tànn bis boo xam koy def loolu ku ko bëgg a tere yaa war a indi dalil ndax luy wane ci charia ne ak jaamu yàlla muy suta tànn bis buñ koy def moom amut comme ni nga mënee tànn sa bis di conférence mbaa ngay tànn sa bis boo xam ne yaa nga cay def tuwaa xatmal quran mbaa mbaa mbaa nga tànn fukki fan yoo xam ne da ngay delluwaat ci jàkka ja même chose la euh, mu waxati ne maanaam mag ñi indiwuñ fi moo waxati yéen ne mag ñi indiwuñ wuñ fi gàmm dañ ko fee fekk dëgg la waaye indi wuñ waaye dañ ko fee fekk indi wuñ fi itam julli takkusaan waaye dañ ko fee fekk loolu moom du ab tegtal ci ne mënees ko royee ci ñoom te fi mu ne tuuma ju garaaw garaaw la tuumaal mag ñi ndax li mu bëgg a wax mooy xamuñu woon la wér ca dañ daan fekk rek lu jóge ci naar yi ñu daal di koy jël te loolu ko xam doxeenu mag ñi xam xam ne dawuñu doxee noonu sëñ Tuubaa daan segg lu bëree bëri lu mu wax ba ku lu ma fi saxiixul boo boo seetloo ak ñu bëree bari ci mag ñi da gis ne ñoom du luñ jot rek jël daanaka koo mën a roy ci nit ñu baax ñi itam la koy royee du koo indi li gën a bëri da ko fay fekk waaye nag ku ñuy la tax ñu lay roy mooy eh, njàmbaar gooyor ca loola moo tax ñu de ñu bëree bëri di seet say doxin ñu fay aw beneen tadlis bi nga xam ne defaat na ko mu ne Euh, ñi njëkk a sos gàmm ay ay ubudi ay ubaydi yu ne lañ leen di tudde loolu fii nazar man bu ma delloo ci kutubu taraajum danaa gis ne ñu bëree bëri dañuy wax ne ka ko njëkk a sos euh, almalikul muzaffar Abu Saïd la tudd te kooku itam nit ku baax la woon histoire am jihaad ak tabeek bëgg borom xam yeeg bëgg ahlul ahlu sunna borom xadis yi loolu lañ ko loolu lañ ko nettali waaye waxuñu ne euh, lenn la lu bokkut ak euh, lu wuteeg loolu kon tëb ne ay ubaydi yoone yi ñoo ko sos foofu be xaaja ila dalil te lii ma lay wax nii boo demee ci séeru alami nubala da nga xam ne nit ku baax la woon boo demee ci albidaaya wan nihaayatu bu ibn kathir da nga xam ne nit ku baax la woon waaye boo demee tamit ci alwaafi bu ibnu xalkaan danga xam ne nit ku baax la woon kutuba tarajum yëpp yi ma gis yëpp dëppoo nañ ci ne nit ku baax la woon koo xam ne yii ngay wax yëpp waxaluñ ko ko waxuñu itam ne ubaydi yoon yi ñoo sos loolu yi yi ngay yi ngay melal yow kon loolu itam tadlis la boo xam ne aaje na leeral waaye nag gàmmo sax avant kooku am na ku ko njëkk a def waa demee ci abo chamata nee na la ki ko njëkk a def Umarul Mulla la tuddoon nit ku baax la woon koo xam ne koo ko tudd histoire am rek zahid saalih ngay gis nga xam ne saaxibu irbil sax ci kooku la ko gisee kon lee ngay wax wérut beneen bi tam wax gi mu wax ne li yonent bi li ci askan wi ëpp na ñuy tànn benn bis naa ci lañ koy jàngale mais ku wax ne benn bis boobu lañ koy jàngale a xamul ne daara yi kutubu siire nga fa jamono yi ne ñi di ko xam nga moo lay wan ne nga wuti dalil ndax nit koo xam ne lu ko neex wax yow yonent bi daanaka suuf yi lu ci bari seen mbir même jaamu yàlla yi ci bari julli ci yonent bi ak yooyu seen daara yi itam jàngalee yonent bi ak siir kutubu siir dafa cay bari ku ko wax ne dañoo jagleel bis boobu rek mais jagleel bis boobu dafa bari moo di ko def te bokk na ci wasaa'il yi gën a gaaw ngir jàngale yonent bi ndax bari na koo xam ne mësta jaar daara bari na koo xam ne li mu xam ci yonent bi ci gàmmo yi la ko xamee nga woo ko ah, te am ndaje ku ne xam ne li muy def ci xol yi ak euh, occasion bi muy ubbil ñëpp pour ñu mën a xam lu bëree bëri ci yonent bi loo xam ne xamuñu ko woon loolu mi ngi joué boo xam ne daaray kese du ko def ne ci jàkkee kese yi itam mën na koo bañ a def kon euh, waaye jubluwuñ ci rek ne foofu lañ koy defee ndax loolu moom ñi koy wax waxuñu ko boo xoolee seeni dox yi itam doxewuñ noonu kon loolu waxi ku amutu ku amutub dalil rek la. bu dee li ko waa ji wax ci muhaadara tamit euh, xëy na ñëw na fi ne muhaadara moom li tax mu bokkut te yee dafa. wuuteeg gàmm ndax ña koy def wutaluñ ko bis waaw loolu dëgg la wutaluñ ko bis waaye ibnu Mas'ud moom muhaadara bu mu daan def moom wutaloon na ko bis waaw boobu moom wutaloon na ko bis moom te wut wut wut bis googu est-ce que yonent bi daana ko def bu fekkee yonent bi defu ko woon rek mooy lay kañ la yonent bi moo njàngalem diine kañ la ko yonent bi mas ma ma ma mas a wutal bis ak lu tax ibnu Mas'ud moom ginnaaw yonent bi mu jékki di wut bis te it sahaaba yi tabi'uni yi di ñu ko loolu doolay ci diine yu bare bare bare kutubul fiqh ak kutubul nahw kutubul arab yu ci bare bare ginaaw sahaba lañ ko talif ta ki talif ab tere ak jaamu yalla li ci jublu kon mi ngi def jaamu yalla go xane sahaba sahaaba yi dawuñu jaamu yalla nonu ta man nga ci lim lu jeex même sahaba yi sax mosuñoo dégg diine na musu mosuñoo wax ne lu fi yonte bi bawut duñ ko def ndax jamaul quran ak al adhan thani ak yu bare bari yuñ def yoy yonte bayiwu ko foon way dañoo dem ba yag ñu gis ne li am nay ci diine ñu def ko jamono ji itam dañoo dem ba gis ne dajale nit ñi gën leen a xamal yonent bi ak màggal juddub yonent bi daa am ay tegtal ci diine te manis na koo def ñu def nag la nga xam ne moom la borom xam yu bare ba wax alimaamu Shafii mi ne woon albidaatu ñaari xaaj la ñu tegtaloo la mu wax ñu xam ne lii kat déewut am jamono yonent bi waaye liñ ci def lépp am na dalil ci alxuraan ak sunna te tànn bi sariya téréwu ko ñu di ko def taxa tañ xam ne am na njariñ képp la du la neen ñetteel bi wax gi mu wax ne diine dafa jaxasoo woon lu jógee penku rek ñu jàpp ne lu baax na na ci indi preuve loolu kañ la mas a am nañu indi dalil yu wane ne loolu mas naa am senegal ndax wax moom bu fekkee tegiwut ci dalil nun amut la ñuy njëkk a jiital ba kër waa ji di ko saxal ndax albayinatu alal mudda'i noonu de suñ mag ñi fi xamoon moom kenn ku nekk alquran ak sunna nga mas di wax la ngay wax itam te nga ko mas a teg mësoo def loo xam ne itam mënu doo génne dalil ba ci fu mel noonu kon bu ne dafa woon ñu dema dem ba yàgg yëf yi leer ñuy tànnaat war naa firndeel li muy wax mbaa booba ñu boole ko ci beneen kuréel noonu li mu wax tamit ne kenn ku nekk daa xam ne mbir mi daa war a xam ne mbir mi du teggin lu ñuy werante ñu naan kuréel sàngam nanguwu ko kuréel sàngam da koo bañ loolu faaw ñu werante ko ndax seetlu nañ ne daanaka benn kuréel bu ndaw rek ñoo koy bañ ah, ndax gàmm moom ijmaa la te lii wax ni boo demee ci الشيخ اليافعي نانا ابراهيم خم واخنا ني اجماع لا ما انا غام دا خم لو تخ مو اجماع جاموني صاحب اربيل بروم خم يو بري بري ньо داجون دي غام تا كين موسكو ويد تا صاح دو سي المشرق رك ميم با سي المغرب العربي بو ديمي سي الاستقصاء ابو العباس الناصري دا لي واخني لا يوسف ابن يعقوب سلطان يوسف ابن يعقوب مي دون غام في المغرب غادي كون ني دون تا لول مي نيكون اي 691 nga ni doon gàmmoo ci penku non lañ doon gàmmoo ci sowut kenn te tuxaluñ kenn ben borom xam bu ko mas a weddi ci jamono jooju te lolu bo dimé ci usul mom la wax al ijmaa sukuti kon te lolu kenn nattablu na al ijmaa mom hujja ndax yonte bi non na tatma'u ummati ala dalal ñi koy wedd ñepp ginaaw bi lañ ñewat kon wax ne ñi ga amuñu dalil lola mom waxi tapale mënu ko romb kon ku tëb ne euh, mbirum dalil ak yooyu yow la ñuy laaj dalil waaye ñun ñu nga xam ne ñoo ñoo fekk ci loo xam ne ay borom xam ci dëppoo moom xam naa kenn du ñu laaj dalil bu ñu amutoon sax beneen dalil ñaareel bi nag ànd ak loolu lépp nag nun dañoo ami dalil bu dee itaam mën nañoo génne dalil bi ci alquran bu dee tagg yonante mën nañ koo indi bu dee jàngale siiratu koo indi bu dee julli ci yonante mën nañ koo indi doo ci gis daal lu ñuy def loo xam ne moom boo boo ñu nee ceex ñu ne la alquran wax na ko fi wala sunna tan nak bis buñ koy def tan bis euh, ku bëgg aramal indil ñu ci alcorane wala sunna luy tere ab julit tahdid tahdid bis bo xamni sa yoy ñëwëte mu def ak jaamu yalla rawat na nak muy bis bo xamni daan gis yonte bi daan tan bis ngir ak xéewal mu far dak lool nga daan gis yonte bi daan tan daan wor bis juddom diko di wala xew xew-xew bu musa mu cion ci mu dak bis boba nga xamni loolu mom fa la sukkandiku sa ba far muy bu même bu sukkandiku kay sa bu ko nexé mu tan bis di def te kenn duko dara Ah, wax gi wax na tamit ku faatu woon bu la yàlla laajee loolu lu tee nga gàmmu nga ne man kat damaa gisut foo ko diglee moo tax dewu ma ko def te yaa moo waxoon ne wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahakum an mu ne kooku moom mooy ëpp lay ki nga xam ne daa ñëw rek ne dama fekk mag ñi di ko def ma di ko def foofu ay tëdd lii saat moo fi am am na tëdd liis bu njëkk mooy daa wane ne kon gàmmu daa amuti dalil te loolu xam nga amut leeral nañ ci léegi ay mbir ki ëpp lay mooy man kat man mooy ka ne man kat dangaa damaa gis nga màggal loo ñu sa yonent bii ah ma gis na tamit sant yàlla ci ak xéewal ci ak xéewal loola yaa yoonal te gisuma xéewal goo xam ne moo gën a mag Muhammad ma la doon jaamu yàlla ci noonu nga ko diglee kooka mooy gën a foor aw lay fuuf ki nga xam ne daa bëgg wax ne yàlla yaa ko daa bëgg a wane ne yàlla gisut fu mu ko diglee boobaa kay lañ ko war a wax moom mooy yàlla dana ne ko ah loolu ko digle naa ko xanaa kon da jàngut ndax bu jàngoon dana xam ne lii muy def yàlla digle na ko ak ak moo tax xamut ne yàlla digle na ko loolu itam dafa am toppi mag nag moom kenn waxu koo dégg mën a toppi mag lislaam a tax muy wax daa gis mag ñoo xam ne xam nañ ne le am nañ cay dalil mu topp leen ci waaye képp kuñ xamoon ne amoo dalil di su la topp lolou mom top nañ top mag ñom koy dégg bu di ko wax jërut ngay lijeenti ndax ah, ah, top mag ñi da koy top ngir ne ay mag la ñom dit lolou ke loolu loolu moom fooguma ne mënees naa génn kenn nit ko xam da leen top ngir ngir top leen rek ko gis mu leen top rek xamna yalla neena nee na fasalu dhikri in kuntum ta'lamun euh ah, yalla itam ne nañ topp yàlla ak yonentam da ci boole wo ulil amri mu xamne ñoñu des leen wara top mu leen di top rek la way du lanen ndigalul yàlla képp la leen toppe xëy na ñu ci bari mu xallil lañ faaw mu xallil dafa war am imaam te imaam ju mat imaam nag manis na koo topp waaye euh, bu fekkonte ne mag ñu amuti dalil lañ wala la ñuy wax amuñu ci dalil sa wax ji mën a valable waaye yow lii nga wax ni safaan baa am mag dañoo seet loo xam ne a dëgër fuuf li ngay wax te yow li wax sa amuti dalil ñu wéy ca loola ci kaw loolu ci la leen nit ñi toppee du leneen kon booba bu fekkee ku ñu war a topp nga fa ba toppoo ko ba noppi yow xam-xam su néew su mel ni si Ahmad loo yor nga yor ba noppi bëgg a dem ak sa bopp tax nga dugg ci mbandi mu mel ni mii mii mu ne bu boobaa itam na laa dal. mu ñëwaat ci mbirum Ibnul Xaaj ak Alfaakihaan yi ne dañoo gëstu ba gis ne gàmmu wérut ñu weddi ko loolu itam amul bu dee Faakihaan yi moom weddi na ko Faakihaan yi nag ñu xam ne kenn rek la ci Maalikee yi waaye am na ci Maalikee yi itam ñu ko daganal. même Cheikh Olay Chimé ñuy wax naa da koo araamal dee boo demee ci minaxul jëlil xam na fatawaam ba la ñuy dem boo demee ci minaxul jëlil da nga seetlu ne daa am mbir yu tax mu di ko araamal waaye mbir yooyu bu deñan du waxee noonu bu dee Ibnul Xaaj nag moom de Ahmad Ahmad dafay def tadli tadliis bu garaaw garaw garaaw moom man li ma gën a jaaxal sax mooy Ibnul Xaaj ci boppam Ahmad day wax ni nitu bi daala Ibnul Xaaj mii muy muy wax ne moom daa gëstu ba gis lu leer. boo demee ci taqdisul ashxaas ci nit bi daay la ko boole moom Ahmad mii di wax raddu na ko yi yu méttee métti euh, ibnul xaaj boo demee ci maddaxal googee nga xam ne ci la Ahmad di waxe bokk na ci ñiy soññee ñuy màggal weer wi xam ngeen ne Ahmad fii muy waxee euh, kuy tànn wenn weer ci weer yi di ko màggal wuute nga ak li Ahmad Lo bëgg a wax kon buy tegtaloo itam daa waroon tegtaloo keneen ku dut Ibnul Xaaj Faakiha nii nag moom la mu wax wéerut borom xam yi leeral nañ ne la mu wax wéerut boo demee ci alxaawilil fatawa bu suyooti suyooti raddu na ko suyooti daa teg risaala boobu benn par benn lu wax mu weddi ko ci xam-xam weddi gu leer nañ kon loolu moom soxalatuñu ginnaaw ñaar ñooñu la ma tudd na dañoo nañ ci indi ay leeral rek ndax tuddut keneen ndax xam naa mënta bari mënta am ay maraaj yu bari moom ndax daanaka li wax ñi ci ànd ak moom dañoo bëriwul euh, beneen mu ne fi mu ñun mooy du tànn bis boo xam da nga cay def ay mbir waaye li mu wuteeg ñun mooy bis boobu ñun dañ ko tànn ne boobu dong lees ko mën a def waaw foofu li fi tontu mooy daa téeluwut rek waaye kenn wax ko ne def ko ci beneen bis boobu dëgganut de ñu lool ñu ne daa war def ko ci boobu itam mbaa bu fekkee gis na kenn ku ko wax na ma indil dalil ñun ñu ñu dey ku dajaloo woon ci beneen bis di sant yonent bi amoo bi yool di waxuñu lool waxee sut ne mënees koo def ci beneen bis itam dañoo bii bis nag ndax dañoo gis yonent bi ay événement bis bu ci amoon mu cee taamu mu di ko taamu di ca defuk jaamu yàlla waaye waxuñu ne force la wala daa wala farata la kon li mu wax ba léegi bokk na ci yi wax te amut tamit ñi mu tudd ay borom xam nag ne boo tànnee bis boobu dañ lay laaj dalil waroon naa indi yooyu borom xam ñan la ndax man moom gëstu naa ci lu bari te ñeneen ñu dun man it gëstu nañ ci lu bari buñ gëstoo ab kuréel bu ndaw boo xam ne seen xam-xam sax ñu ci bëree bëri ëggut fenn fi ñoo koy wax waaye ñu mag ñaa mag a mag moom seetlu nañ ne lañ wax bokkut ak loolu wax gi mu wax ne xisab ibnu yi mënees cee tegtaloo itam fii boo xam ne ca loola dong nga loolu moom tegtale na ko wax gi mu wax ne nag da li ñu wuute mooy ibnu mas'ud jàpp wax gi mu wax ne nag li ñu wuute ibnu mas'ud jàpp na ne bu ko defoon bis mu wér ñu itam gëm nañ ne li ñuy def ci gàmm bu ko defoon beneen bis mu wér de gëm nañ ko de jàpp nañ ne da nga am yool yàlla dana la fay bu dee loolu rek mooy différence moom farq bi moom defe naa ne kon sa yow nga teg ko fële waaye tànn gi bis nag dañ cee gis yeneen dalil yu tax ñu tànn ko jëmmi tànn gi ñu tànn foofu mooy yonent bi daan dakk anniversaire di cay def ak jaamu yàlla looloo tax ñu dakk anniversaire boobu euh, waaye ku ko jëloon tamit dajaloo ne da ngay da ngay gàmmu def même li ñuy def ci beneen bis danga nga am yool ab yool loolu moom noonu wérante wuñ ci ñaareel bi itam euh, doxinu saxaaba yooyu muy wax ak doxinu yonent bi fenn foo xam ne tere nañ ci wut ak jaamu yàlla nga wut waxtu woo koy def moom kenn gis ko Abu Hurayra te wax nañ ne douze mille fois daana ko am wérdu gum daan jàng parbis am na ci yeneen saxaaba yu nett lil yeneen mbir tamit yoo xam ne dañ daan tànn def nangam nangam yoon far bis kon loolu lépp day tegtale ne kayfiyaat yi diine da koo itlaaq ku mu neex nga nga nga seet ne man bis sàngam dinaa def lii wala waxtu sàngam dinaa def lii loolu kenn téerewu ko Ibnu Mas'ud itam waare yooyu muy wax loolu dong ko waral mooy da xam ne waare ak jaamu yàlla la waaye wutal ko bisu alxames bisu alxames la ko daan def tànnal bis ak jaamu yàlla loolu dara niwu ci ñun ñi itam noonu rek lañ def ci gàmmu ay jaamo yàlla la yu ñuy def ngir sante ko yàlla tànnal ko bis itam dara niwu ci te sax bu fekkee Ahmad xamut ma doolil ko ci beneen xista boo xam ne moom xam naa ne bëgg naa ciy dégg tontam ibnu abbas bo demé ci murni bu ibnu qudaama bisu arafa bu massa jot euh mu nekkon fele ci wetu iraq da dan dajale ñi ñi ñuy ñaan ci bisu arafa nga xam ne bisu arafa la koy def ba bisu arafa ci wat waaw ndax da nga wax ni ibnu abbas mubtadi la parce que dafa am jaamu yalla gum jaglel ben bis bo xamne fofu foofa de su ko fa defena arafa moom makka lañ ko ña koy def makka lañ ne waaye moom même bu neewon makka ci jakk yeeg yooyu day dajale ñi ñi di ñaan ci bisu arafa te pourtant saxaaba yi lay tudd de xanaa kooku moom kon moom mi nga xam ne yonent bi nee na mooy xebrul umma xanaa moom déggut diine moom kon ñaareel bi itam salafu saalih ahmadu ah, ahmadu ibnu hanbal ku ko ci gën a bokk ahmad taarif boobu nga xam ne moom la ibnu abbas doon def nga ne ak jaamu yàlla la goo xam ne jamonoy yonent bi dawee su ko defee noonu ah, ahmad da koo daganal boo demee ci muxoon nii yi nu lim nu xudaama da nga ko gis xanaa ahmad ak ibnu abbas ñoom ñëpp moom kon la ñuy def biddaa la ndax dañoo wut ak fekk dañoo fekk jaamu yàlla xam ne eh, donte ñaan ak yooyu yonti bi moo ko tashriya waaye nag wuutal ko waxtu yow ma arafa nga xam ne da koy def te niveau yow ma arafa nga dajale nit di ko def loole moom gisuñu ko ci doxinu yonti bi ndax xanaa ñoo ñoom itam ñoo ngi ñuy gàmmooyam kon